ñàkkum ndox nekk na problème bu metti lool boo xamante ne ni ñi dëkke fii ci Yoff Océan moom la ñuy dund gannaaw tabaski ba léegi ndox toqul benn yoon ci robine yi bu ñu sukkandikoo rek ci ñi dëkke fii ñi di jigéen ñi nag moom dañuy yeewu fajar rek ngir mën a wuti ndox fuñ ko mën a amee bu tabaski ji ba léegi amuñu ndox ndox mi daal moom du ñëw jigéen ñi sonn nañu taay nañu ci ndox mi wax dëgg yàlla. jigéen euh, lu mu lu mu lu mu mënti am te amul ndox amul dara. fajar 5 heures du matin la ñuy di jël seret di darte darte ak moom bokkatu aéroport bu njëkk di wuti ndox. guddi gi doo nelaw da ngay nekk di xaar pour robine yi ubbi. 4 heures du matin la ñuy yeewu. ñi dëkkee fii ci Yoff Océan nag ñu ngi dépensé bu baax a baax xaalis waaye tamit ak coono bu metti lool ngir rek daal di mën a am ndox ci robine mbedd yi wala sax ci yeneen i fii ci Ndakaaru chaque jour bu ñu xëyee da ngay dem ci robinet mbedd bu sori jën ndox cag-cag bii mooy suñu seede cag-cag bi lañuy fay xaalis mu indil ñu ndox. dañuy wuti ndox yàlla xam ne ay Ouest Foire sama doom nekk foofu moo ñuy may ay butéel 10 litres. ñii di askan wi nag di ñaawlu bu baax a baax boobu les situation ba tax na rek ñuy joxañ baaraamu tuuma kii di seen eau. lu ëpp tuuru dañoo dem ba nga xamante ne dafa metti parce que facture yaa ngi ñëw te doo am ndox buñ la boo fayulee dañuy déjati sa compteur yóbbu seen oo daal bu mënulee na jox keneen ku ku mën mu def. askan wi nag dëkkee fii ci Yoff Océan di yuuxu rek ku leen wallu ci wetu ñi nga xamante ni ñoo di autorité yi nekkee foofu ci Yoff ba tax na li ñu bëgg mooy ku leen dimbali rek ci seeni jafe-jafe.